mbokk yi ñu ànd ceeg Leewtoo production muy dox ci diggante Tidiane Faye le professeur de euh, ko tuddee. ah combat amateur la nag. combat ñaari mbërëntaan la làmb bërikat la. bii mooy sama trente deuxième combat. man kenn teggi lu ma yor damaa xare. ku ma lebal boor dama koy fay. làmb léegi sama bakkan gi laa ci teg. Ndandi maa ngi yow droit lañ. boo bëggee combat bi day gaaw. Ah. xanaa nga bañ a bëgg. dañ koy jël lu ñu moom force. dama ne Tidiane na ma xaar maa def lépp maay xale. le 6 janvier 2024 fii ci arène nationale Ndandi Fall ne ma daañu bëree daañu xeex Tidiane Faye ne ma su bëggee sax ñu bëre ba naaw ci kaw air bi Ndandi Fall di jógee Grand Yoff Zarko andiko ko Tidiane Faye di jógee Lansar Siteu ànd ak tarkindaa yi. la ilaha illallah. ak sama boy yëpp liggéey bu mu toll booy bu jigéen maa ko sama loxo. kon da ngaa investir ci moom. non bu baax ñu ngi am yaakaar ci moom te yàlla bi yàlla di seet. mais Mbow foo toll. noo ñu ci waajal. président na fekk nga jëlee dara lu bees tey tey tey lan nga ñuy wax. waaw man moom. xam nga combat daa ñëw nga ne ñu yàlla kabali comprendre nañu. waaw combat ba ñëw nga confirmé tey loo ñuy wax. non incha bu ci yeggee rek incha mooy lan waaw donc bu ñu yeggee si yaatu. looy teg ci a ngi lay xaar. non ñi ci préparation ah. ah. ngi jëm gaal. Cheikh dof du war a ngi ngi noonu. Samba Xoyaan baa ngi noonu ndeysaan mbokk yi Ngoyane baa ngi noonu Eumeu Sène l'avancée de Pikine si nga l'adversaire de Sa Thiès ndeysaan noonu mbokk yi ndeysaan surtout Samba Xoyaan baa ngi noonu ndeysaan takkusaan bu nekk am na ko bu ñu fàtte takkusaan takkusaan beeg digganteem ak Tapha fii loolu barki Demba Ndiaye la woon ndeysaan tey am tey am ma ndeysaan ndeysaan ñu ngi saafoon toog mag ñi ndeysaan ndeysaan force de l'ordre yi ndeysaan mu ngi saafonte ak force de l'ordre yi ndeysaan grand Ibou maa ngi noonu ndeysaan croix rouge sapeur la police ndeysaan tey ëmma tey ëmma Balla Gaye Balla Gaye 1 gisuma ko Balla Gaye 1 Ndiofane. soo perte waaw léegi sotub baa ngi nii ndeysaan daf du wër taay si nga ndeysaan xaadim mais xaadim gëj na laa gis lamb gëj na laa gis mais lamb namm na la waa dafa bàyyi wala nu mu nii non fi maa ngi fi xaar retouru xaadim non si ah, ah. sa tub sama xoyaan baa nga noona ndeysaan Sow muy dox ci diggante Tidiane Faye le professeur de l'arène ak Ndandi Fall le technicien de Grand Yoff. le professeur nag journaliste ñoo ko tuddee. ah combat amateur la nag. combat ñaari mbërëntaan la lamb bërikat la. bii mooy sama trente deuxième combat. man kenn teggi lu ma yor damaa xare. ku ma lebal boot dama koy fay. lamb léegi sama bakkan gi laa ci teg. Ndandi maa ngi yow droit lañ. boo bëggee combat bi day gaaw. xanaa nga bañ a bëgg. dañ koy jël lu ñu moom force. dama ne Tidiane na ma xaar maa def lépp maa xale. le 6 janvier 2024 fii ci arène nationale Dandi Fall ne ma daañu bëree daañu xeex Tidiane Faye ne ma su bëggee sax ñu bëree ba naaw ci kaw air bi Dandi Fall di jógee Grand Yoff Zarko andi ko Tidiane Faye di jógee Lansar Siteu ànd ak tarkindaa yi. la ilaha illallah.